yirim yirim ngir yalla may ñu jamm yirim bayal ni nga mel da ngay fekk kilifa teud sax nga fen ba yeew nabi vi ne man may ni do du dal dugg rek yam ngay fen ni duñ am majorité fan nga tek ni duñ am majorité yirim bu le da nga fen daw fen daw jeeg fen dawati jeeg fen yàgg fen 2019 fenon nga fini Karim dina ñew and ak Nations Unies and ak ku ne Karim ba legi ñew fen nga fi ci élection yi jall ni kenn mënta gagner premier tour fenon nga fi ci élection yi jall ni Pastef mënta génn premier tour fenon nga fi ni Bassirou jomay faydou nek candidat Sonko mënta nek candidat kenn ci Pastef mënta nek candidat tay fenati nga man nak bama ma ñu ni Yirim nee duñ am majorité ci la sama xel gëna dalé ndax lu mu wax contraire yé bon lér na ma nañ dinañ am majorité bu yaatu macha allah Yirim rahmatullah mbokki patro di mbokki senegal yi maa leen di béggee bu baax te di leen saare di leen ñaanal jàmm ñu def ndànk ci waaj yi manipulateur bu mag a mag bi danser li ci am réew moo tax réew mu nekk dañ ko faa war a génn muy Cheikh Yérim Seck man naa taalum réew te Cheikh Yérim Seck man na fen te man xam-xamu Cheikh Yérim Seck jaaxal na ma bu ñu nee Cheikh Yérim Seck daa am xam-xam yow mënoo takk ak wëñ mënoo almet Naby Vision ab puso sax mënoo koo nas bu ñu waxee ñu ne am na politique am na xam-xam yow analyse politique boo fi nekk boo fi def bu ñëwee day jaar gauche li jaar droite Cheikh Yérim Seck ruusal sa njaboot gi te dem toogi te bàyyi sa caaxaan yi ci ay caaxaan ci nga lemu te am réew wër te doxe ci ay caaxaan la fi amoon nag wonni na laay wax baaxoon ci yow ndax saaboo boo génnee feneen ko mu tëj la ci kaso bi nit day am jom am lu muy romb am lu muy am am am lu muy jomb Cheikh Yérim Seck fekkoon ne amoon nga jom wala nga am looy romb looy looy looy bañ yaa fi waxoon fii ne kenn mënul gagner élection yi premier tour surtout nag waa Pastef nga cité woon leen ñu ñëw gagné premier tour bu leer nañ nga génnaat di fen naan waxuma woon lool li la wax manipulation bi ngay def dudul jall parce que nit ñi dañ la xam mitiré sa nañ la ci ay caaxaan ci nga tënku xaalis ngay jaamu na leer bu taxawé fi nak naan ay jox majorité en majorité euh, passif sax lool danser la ci dictateur mané passif sax dañu wara tek dictateur ci réew mi tek ko ñu melni yeen ak ñi andon ak Macky Sall diko defal sal bolo. Cheikh yirim Seck bi fi Macky Sall di pousse fi élection yi ando ak yeen ñi nga xamne yeen lañuy way ay borom xam-xam ci rew man seen xam-xam jaaxal na ma àndoon ak député Benno Bokk Yaakaar du pousse élection yi bu len faté na Macky Sall bimu élection yi trois personnes dem nañ ci kon képp ku won Macky Sall dang ko wara bañ képp ku andul won Macky Sall da nga wara a bañ ak mom képp ku contrôle gaay yi say say yi lo len contrôle benn dang leen wara contrôle fukk ndax ci ay tiaxan ci lañ tënk barké alcorane lepp fi lañu fekk sax yi lim sék amo xam-xam te da nga ñëmé yalla ci ay dong ci nga lemu du la nen di wut xaaliss di di di complot ak ñu fi nek ñi nak fexaleen ba bu leen ko bayyi mu burul te ñun ñu la ci ñun parce que yow da nga mëna fenn lool moy sa problème président daal doxalal ñu ngi ci ginaaw gaay lepp lu mu leen jaral encore une fois nañu ko jaralat ñun parce que loolu sunu ndam la combat bu ñu ma song nag daan nañ ko combat bi ñu jëm muy la 17 lañ leen ko andando takku wat ci daanat ko képp ku amul no défendre projet bi lo mëna am pot ak xott loo mën a am rek pour défendre procès bi téléphone simple tous loo am ñëwal nga jàpp ci procès bi incha allahu rabi ñu dox jëm ca ngir jàppale sunu gars yi parce que ñii ci ay caaxaan ci lañ tënku te xam nañ ne senes bi déglootu leen senes bi daal procès bi la ñuy aar ci kàttanu suñu borom caaxaan ci ngeen tënku amu leen xam-xam dem leen ngeen toogi nabi vi lii nag président bi def ñu naan waaw lu mu def ko mais lu tax def si woo nit tey bu la neexee nga nga nga jël nit tey signé waat décret dàq ko alors lan mooy problème bi président Bassirou doxalal ñoo ngi ci sa ginnaaw saay-saay si danañ def ak ñoom faire face ndax bëgguñu réew mi ay ay xërëm la ñuy jaamu te mën a fen amu leen xam-xam dem leen ngeen toogi ab poussé sax kuñ ko jox mënoo ko mënoo koo nas bëgg ne am ngeen xam-xam da ngeen di caaxaan rek. asalaamaaleykum encore xam nga man li ma bëgg a xam mooy Ousmane Sonko. yaa Bassirou Diomaye Faye le président de la République du Sénégal. ak yow le premier ministre du Sénégal man dama leen dama bëgg a laajte ñun sénégalais yi ñun yi nga xamanteni ni ñoo leen falon dañ leen a fal pour ngeen pour ngeen pour ngeen pour ngeen def seen seen projet ndax lam mais comment vous yéen nañ leen fal ngeen ngeen wara a diriger Sénégal ak ak fulla ak fayda ngeen continuer bëgg a réew mi nam nekké won rek nam nekké won ni ngeen continuer ni bu ngeen ko continuer wallahi lazim nit ñi danañ leen bàyyi mais Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye diriger leen ci réew mi ak fulla ak fayda

après jurisprudence Cheikh Oumar Dia ngeen bu a def ngeen bëgg a def ko buñ ko dakkee ëllëg ngeen raayal Sonko <laughs> da ngeen def yéen réeroo leen sax billaay irisex lu peng nga ne daay mii di fay day fay par force mënoo ci dara manifestation bi du amati Serigne Mountaga joxe na directive pour mbakki fay wax ak taalibe murid yu bàyyi lépp lu mel ni manifestation yi ñu yëkkati woon nit ñi dañuy dem gàmm te gàmm la ñuy taw yow da ngaa seytaane yow kañ nga mës a xeexal ay kañ nga commencé xeexal ak sëriñ asanamaan ak sëriñ Touba ñi ngay déggee ngay wax sëriñ Touba ngay sallalu sax xam nga ne yow gomoo sëriñ Touba. Naby Vision yow yaa gën a doon seytaane si ñëpp coow li di fay nga naan du fay coow li nit ñi dañu nekk si deuil national gaal bee këpp mbuul soo loolu nekk di wax. yow ñaata yoon nga fiy gis nit ñi di saaga ndey sëriñ suba ngoon bu dëgg bëccëg yow yirim nangoo ci wax seytaane bi nga doon. information bu ñu génnee ni ñeneen Ousmane Sonko nee na xamul si eh, kii Cheikh Oumar Diagne dañoo war a topp ku génne information boobu ñu woo ko comme ni ñu woowee commissaire Keita mu ñëw leeral loolu mooy dëgg dafa war a ñëw leeral fan la jëlee information yi Ousmane Sonko nee na xamul Cheikh Oumar Diagne gis nga yow fu mu àgg du man a àggu fa du mais lu mu doon yirim moo tax parce que yirim waxam fu mu àgg waxu ñeneen ñi àggu fa moo tax boo waxee midi midi pile nee naa la dajale teg la fële seytaane fii nga ñëw di wax si yonent bi salla salla munoo saa wax bun nga ñëw fii di bin bin ma dajale tegal la fali ma xamal la bun la ñuy wax nga nga démarché Maimouna Ndour fay ngay wër sa téléphone munoo ko saa xam-xam bi nekkul sa bopp bi man fima tok ni soma laaje ma kuku jur mu bun abdullah bun Abdul dalib bun khasi bun abdu mana bun usaydi bun kila bun murata bun kaba bun luway bun ghalib bun firi bun malik bun nadar bun kinanata bun khuzaimat bun muzrikata bun ilias bun musar bun nisar bun maadda bun adnan xam-xam bi nekkul sa bop bi da ngay nekk di xool rc bi nga naan tubaab bi nee na Senghor nee na réew mi li ko mën a taal affaire wàllum tarixa c'est-à-dire ñun dañoo juddoo si tarixa màgge si tarixa fekk suñu ndey si fekk suñu bàyyi si tarixa yaa ngi dégg mais gis nga réew mi dañ koy defar nabi Vision ñun bañ ñu ci dara dara dara lañ ci bañul boo leen jàppee ñun dañuy kaf da ngeen di dof ñun kafuñu foowuñu lu leer lañ leen di wax ñun réew mi dañ koy defar lu leen jaral pour yàq rek jaral nañ ko lu ko raw pour ñu defar ko lu mu doon yoon salaam salaam Sénégal yi dafa am dëgër bopp ku mel ni Souleymane Niang wala Abdou Mbow wala Cheikh Yérim Seck ak euh, ñoom day Fatou njaay ak journaliste yi nga xam ne nii yenn ci journaliste yi nekk TFM ak journaliste u TV yi bi ñu invalider la candidature de Ousmane Sonko mu joxoon Jomaay Fay ne Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay depuis lors ñi ma cité ñi ak opposants yi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi topp naan Ousmane Sonko dafa am problème ak Jomaay Jomaay dafa am problème ak Ousmane Sonko naan Ousmane Sonko mooy diriger Jomaay

dama doon ñaan yàlla Ousmane ko nekk président de la république far mu nekk sama premier ministre mais wax ji jeexul Ousmane Sonko ne motion de censure du am Diomaye fay jox leen liggéey boo xam ne ni talu leen ko Ousmane Sonko ne dañuy dissoudre assemblée nationale Diomaye par décret daal di koy dissoudre ba tey mun leen gëm ne Sonko moy jomay jomay moy Sonko mais di ngeen xam Pastef ñoo leen gën dëgër bop fop ñom ñi nga xam ni ñoo fi balé Macky Sall ñoo leen fi balé yeen député yi. Naby Vision. je pense que cette fois-ci di ngeen di ngeen régler xam jomay moy Sonko Sonko moy jomay